mbégte bu mag a ndaxte jàpp naa indépendance ak léegi amul ben deuk bu président de la République yi fi jaar yëpp ak ci fi nek tay jagleel investissement bu upp ñent téeméeri milliards ak lu tek lolu ñun ñi nga xam te ñu ngi yëngu ci walu infrastructure xam nañ li mu ak day bi mu am ci walu économie ak ci walu manam euh sécurité ak ci walu même santé ndaxte da fay a saxal disons santé wér-gu-yaramu nit ñi ndaxte tay bo jógee Touba man nga 1h30 nga ag Ndakaaru comme ni nga ko waxee boo fayee 3000 francs dem aéroport international Blaise Diagne sa avion dem dem tukki bo indé conteneur bu ñëw port Dakar 1h30 mu agsi Touba nga écouler ko lolu moy impact bi ñu wax ba paré accident da fay wàññeeku kon lolu lepp japp na né ay bien ay ay ay xéewal lu yu am ci autoroute bi te japp na lolu Sénégal té japp ak ak toute la population de Mbacké wa lolu doom deug la parce que président de la République dafa dafa stoppi tay manam nous ñuy ñuy ay infrastructure man mi li ma dénk gérer ay infrastructure publique manam dang koy réaliser tabax ko out financement ba paré assurer maintenant entretien bi loolu lu bess na ci réew mi donc loolu aussi moy am ci autoroute bi te lim wax moy que dans une perspective transitoire manam ci une période transitoire dañuy continuer confier gestion bi entreprise bi ko tax bi ko tabax mais du ñàkk ci ma jàpp dina am entreprise bu koy wuutu boo xamante ni euh, disons récupérer tout ce qui est euh, le retour sur investissement bêta réalisé non président wax euh, situation transitoire wala sax deuxièmement travail pour c'est légitime ah, et là je parle en tant qu'inspecteur du travail Je suis neexul ci sa nga am nga droit nga wax ko wala nga mais bon tout compte fait li am

waaw autoroute bi dong man ma sama conviction mooy autoroute bi dong war na mën a tey disons indi créer développement Sénégal développement Touba ndaxte mooy li mu wax sànq dafa am impact sur le plan économique mais également sur le plan social même sur le plan de la santé de la sécurité kon tey jàpp naa ne que mébét yi am ci Touba mooy indi fi hôpital bu bees euh, yokk assainissement bi créer ay bretel maanaam périphérique pour contourner Touba

rencontrer ñep waxtana ñep sensibiliser len ci njariñ bi Sénégal wara am pour may euh, président de la République benn mandat njariñ bi nga xam ne ñun waa département Mbacké surtout wa commune Mbacké am nañu ko pour président de la République am benn mandat ba mottali yéen am ci Touba mottali yéen am également pour euh, tout la pour tout la pour tout le département de Mbacké je pense que tu loolu la ñu war jëm incha ci fa ñew